moo ñëw seen biir si bi ay mbokkam ndax euh, man soose laa maa ngi may cosaan ña nga Sédhiou Morikunda kon bu ma ñëwee fii yaakaar naa sama kër laa ñëw rawatina aussi ànd ak euh, kii di suñu président di Modou Lamine Diallo bi yoon nag du ñëw bu njëkk mu fi njëkk ñëw ànd naa fekk moom ay yoonu yoon ñu ñëw di ziare si góor gi kon tey euh, Daouda la tey yaakaar naa seen président suñu président mi ngi noonu suñu président mi ngi noonu suñu président bi taxaw nag pour taxaw jël réew mi di ñaan yàlla ak suñu sëñ bii ñu am tey di suñu yaakaar mu ñaanal ñu ci loolu ndax mooy suñu mbébét suñu mbébét mooy tey doon 2024 président de la république du Sénégal ñu ñaan yàlla nga gën a yokk ñaan sa doom sa xarit Modou Lamine Diallo yàlla may ko loolu may ko waa Tekki yëpp kon loolu yaakaar nañu si baax a baax di si ñaanal baax ngeen def ko di ñaaxaat suñu mbokku jigéen ñi ak waa Mbour yëpp ak Daouda Sylla ci loolu nag il faut ñu jéem a taxaw tamit ci wàllu mbirum parenage képp koo xam ne xam ngeen ko mu ne fi te mën na pare ne ngeen taxaw ci def parrainage bi seen carte d'identité yooyu ñu am leen seen photocopie moo xam photocopie moo xam légalisé moo xam ngeen photo leen recto verso loolu daal képp koo xam ne tey am nga yéene. pour que kii di suñu seen doom di suñu président la Lamine jàlloo dem fale liy njëkk mooy parrainage te parrainage boobu yaakaar nañ leen ci bu baax a baax te yaakaar naa da ngeen taxaw taxawaay bi ngeen ci war a taxaw kon vraiment di sant ñëpp di di gërëm ñëpp di wax ne vraiment euh, ñaan yi ñu fi doon ñëw sax saa su ne ñëw fi wut si ñaan yàlla duñu ko jox mu ngi ñëwaat encore tàllal suñu loxo pour que vraiment ngeen yokk gën yokk ñaan daal jërëjëf.